barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mu jël faydu jox ñu ñuy naan. dëkk ahlak naaha alag nañ ko wax ya dëkk ba zaalimatun aji tooñ la woon wax ya dëkk baa ngoog xaawiyatun di aji mabb ala urusha ci ay tegam dekk ngi ni dekk go xamne yalla dafa yewalon ci ñom yonante bu ñu tuddé xansalatu bun ak becc ak mu leen di wax yalla ñu mere ko daliko di ko ko ci bir teen ba kéro la dekk bi ñiisee amatul ndox kéro la dekk bi ngaccé amatul ndox tax yépp kéro la rappé nit ñi kéro la ñu gis xalé bu tuti judd rek daldi ngir alkane bejjaaw yépp du leeru yalla de am na bejjaaw yoo xam ne ñàkk koy def ah, ah. am na bejjaaw yoo xam ne coono gu ëpp moo koy def am na bejjaaw yoo xam ne joote moo koy def am na bejjaaw yoo xam ne jaaxle moo koy def am na bejjaaw yoo xam ne yàgg ci géej nekk navigateur moo koy def am na bejjaaw yoo xam ne xalaat gu ëpp moo koy def am na bejjaaw goo xam ne yërmande yàlla la yàlla yàlla def suñuy bos boobu la yaa rabbi Euh, ngeen bàyyi seen xel ci bërëb wax mooy àndi wax wat sikkim ba mu jeex daganul de déedéet daganul de yonent yi kenn mosu ko def nitu yàlla yi xuuf mu jeex mosuñ ko de déedéet gisoo balaa lislaam di ñëw même balaa lislaam di ñëw ci jamono yéeféer ku mag ba dee te amoo sikkim duñ la doon suul ci biir dañ doon gas paxi guy dugal la ci mel ni jongo ma saa soo xëyee nga ñàkk dépasse moo la dàqal lancet boo xuufee dafa aram de démb ba yont yàlla Moussa di jàpp ci sikkimi Haaruna du jàngoon nañ wala ñu ko tudd de wot sikkim ba mu jeex takk islaam def ko teg yonent bi nee na na ngeen lëwal seen sikkim yi tey jemp naanuy wuute leen ak nasaraan nasaraan dafay dindi sikkim guddal mustaas waaye yéen na ngeen guddal sikkim tey wàññi mustaas lii la lislaam digle dégg nañ ko mbir màngo ak ku koy def lu bon bu ko ñëpp doon def du tax mu dagal waaye lu baax bu ko ñëpp bàyyi woon du tax mu bon kon ñu góorgóorlu yal na yàlla dimbale ñu yaa